Bonsoir, chers internautes de Guédouin Info TV. Aujourd'hui, nous sommes avec le grand champion et par ailleurs frangin de Balagay numéro 2, Satiès. Un lutteur que j'ai surnommé lultra offensif. lultra offensif. Pourquoi lultra offensif Parce que c'est un lutteur qui est connu et reconnu par sa technicité qui est au-dessus de la moyenne, mais également sa rapidité d'exécution, parce qu'il a l'habitude d'envoyer ses adversaires au sol d'une manière expéditive. Monsieur très chers internautes, permettez-moi de faire une transition dans la langue de Kochubarma. Barma. Bok tay ñi ngi ak le grand champion nek rak ci Balla Gaye numéro 2 Sa mu don daananu lamb ko xamanteni ne ko tuddé l'ultra offensif lu waral tour bobu ndax nek na mbeur mo xamanteni tay bu duggé ci gaw dina wan fulé dina wan fayda dina dina wan a xarañteem combat am yu bari anam bi mi daané adversaire day don anam bu gaaw c'est-à-dire d'une manière expéditive lo tax ma duppé ko lool kon ma bay ko mu nuyo dal di présenter ak bok internet yi mbeur ñi ngi lay nuyu di la ziar. waaw ñi ngi santat yalla bax di jëli ci bi sant suñu ñaari wajur aussi di jitté ci cadre bi ñu génn yalla xaar la jëna ñu caabi féete gannaaw caabi féete leen kanam di wax ñi ne ci hôpital aussi yàlla yëkkati leen ñi ne problème ci caluf taluf ak jafe-jafe yàlla fëggal leen seen bopp moom woyof waaw di wax Sénégal yàlla fi jaamu yàgg lu nuyu aussi tamit kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi parce que ñun ñaanuñu fitee tey kilifa la ñaam ñaan yàlla képp ki nga xamante ni yaa ngi sa gox yàlla fi yàlla yàggal awatina sëñ du Karim waaw mbër bu loolu weesoo mu am ñaari nit ñoo xamante ni muñ naa eh, ni tey dañ la yàgg taxaw donc di sonn say bis muy ku ci mel ni grand Moussa Fall ak eh, grand Andaw te est ce que mën nga kan ñu leeral nag yow tey seen diggante lan moo ko waral ak ban relation ngeen séq mi Andaw ni Moussa Fall ñoom ñaar ñëpp dañ ma téye ci benn condition boo xamante ne ñoo nuroo même niñ ma téyewee mooy kenn ku ci nekk da ma jàppee comme sa rakk bi nga bokk ndey ak baay Andaw du lam moo tax ma Moussa Fall du lam moo tax ma mu neex maa ngi leen gis mu nakari maa ngi leen di gis te yàgg na trop ba ma leen xamee boobu ba léegi lu ma nekk balaa ma ciy dugg ñoom laa ci njëkk a composé ñoom laa njëkk a woo ñu waxtaan ñoom laa njëkk a diisool même dul làmb sax balaa maa dugg ci dara ñoom laa jiital ci sumay mag yoo xamante ni balaa maa am sañ-sañu wax kenn ci lenn lu sama ndey sama baay ñoom laay dem waxtaanal parce que taxaw nañu fi mu war a taxaw wax dëgg yàlla lepp li ma li nga xamanteni ni na te ma koy dund rek mën na ne ñoom la lepp lo ko dafa sik rek mën na sama jikkoy bop la mais ñu may tek ci yoon bu bax ñu may tek ci yoon bu jup mi Moussa Fall mi andaw wax deug yalla man yalla rek la la mëna bayil muy guddu fan wër xewal parce que nit yi jàmm lañu budul man dañuy dimbale ay ñeneen ak ñeneen ci doomu adamay wax deug yalla man day ma leen bay ak yalla mais li sax suñu digënté ñu ñaar te mu ci yalla la jóge kon mun na jàpp ni doon relation bo xamanteni li nga seq ak ñom digënté bu yagg la lu jitu avant lamb dëgg yalla jitu na mën na jitu na sama judd ndax yalla bind nako ñu ñëw tay manam ciofel ma am ci ñom sen bos mo ëpp doole ka sama bos kon xoluñu bon xoluñu meti, metti xoluñu mu nakari xoluñu dara ci man loolu moy nañu jappalé ba ma réussir te aussi réussir bobu tam yalla na sax ci sen côté ñomit ndax nitam bu lay dimbalé te amo doole kooku mën a dimbale da koy ñaanal yalla waaw mbeur bu lol wesso mu daal di taxaw tuuti appesantiru ci sa digënté ak boyna sa dernière sortie donc ce euh, ces fans yu bari ni anam bi nga ko bëré manière bi nga bëré da leen xawa a jaaxal andu euh, ñu ci yow lol lan nga ci tontu waaw di ci gattal bof rek parce que nit amul say soppé tay ñom ñoy suñu fit ñoy suñu doole ñoy suñu courage parce que mu nee ba lamb gis gis rek mën naa ne lépp lu ñu amoon ci doole rek bu dee cent pour cent dina doon 200 cent pour cent euh, mënu ma nag loolu ma defee naka sunu noonu te neexu leen rek ma jégalu leen mooy di leen jégalu baax a baax a baax moom xëy na bis boobu bisu ñàkk la rek mais wax dëgg yàlla maa ngi jégalu baax a baax. waaw loolu am na solo donc mbër bu loolu weesoo tamit bi nga jógee sa sa dernier combat ba léegi sa diggante ak Boy Niang bi yàgg na. waaw dégg ñu la am na ay diggante yu doon wax ku ci mel sa diggante yaag Papa Sow yaag Yékini Junior mais lan moo waral avant tout toogaay bu yàgg bi. waaw xëy na benn mocc parti bi ci sama côté lay doon parce que man maa nekkoon du xoolaat sama bopp nekk ci sama bopp aussi parce que am na loxoom boo ci jógee mënoo tëb dugg xëy <clears throat> am na combat bi ñu ci doon dox bi ngay wax benn bi mais tagee woon ci man ci moom la tagee woon. Papa Sow bi. boobu Pape Thialis moo ko doon dox eh, loolu lu ci tagewu ci man daal ci gàttal Yékini Junior bi nag wax dëgg yàlla dinaa ko gis ci journal dinaa ko gis gars yi di ko wax mais amu benn promoteur ma woo na ma sa combat Yékini Junior. benn promoteur mos la wax ci yow sa diggante Yékini Junior. non non wax dëgg yàlla waaw ah, mais nag gars yi ciy wax affaire yooyu comme wax yi amateur solo yi yëg tout mais dëgg yàlla promoteur mosuma woo dama wax yi ba Yékini Junior. instant saison bi mi ngi dem mun naa ni sax ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi jëm vers ci mois ci saison bi ah, fi mu toll nii yow lan nga décider da nga décider toog daal def année blanche wala tey bu ñu la seetsee am adversaire bu la intéressé pare nga pour jël ko waaw man nag du ma sacrifice sama bopp aussi am naa kilifa am na ñoo xamante ni euh, bu ma ko waree jël dinaa leen jël mais am na ñoo xamante ni moom ma leen war bu ma leen warta jël tamit du ma fi toog di jël parce que tamit yenn saa dañ naan liggéey la dëgg la mais tamit liggéey dafa laaj avancement dëgg yàlla ndax nit mënoo toog ku war a bëri ki nga war a bëri kooku bañ a bëri yow nga dem di bëri ñoo xamante ni yow amaloon la benn njëriñ boo leen daanee doon dem boo leen daanee ñu yàqal la kon tamit loolu dafa am solo mais làmb weesuwul parce que tamit ñu ñëpp bëri naa sax dama naan bëri naa ay adversaire lëri naa ay adversaire xëy na politique bi tey moo tax mu mel nii mais wax dëgg yàlla rafet naa njot dinaa bëri ren allah waaw ah, loolu am na solo mais mbër ñu gisoon aussi benn benn mbër waaw mun naa ni rëg-rëg bi bi mu bëri Elton ba pare mu faral di def ay sorties di wax ci yow mun naa ni sax di la sànni ay trac tey loolu yow kàddu yi mu doon wax noonu nan nga ko gisee. non gisee ma ko lenn parce que waxi mbër la rek parce que tey mbër moom boo ko soxlaa moom bëgg bëri moom loolu nga ko wax waaye am na combat am aussi loolu moom mun ma cee xuus bëri. waaw gis nañ aussi sa Jordan mu def récemment benn sorti bëri woon nga ak moom ba am ci kaw ndam mais mi ni Sa Thiès daanu biñ ko laajee lu tax mu wax loolu mi ni parce que dafa am ku ku nekkoon ak moom jóge ci moom am lu mu def loolu moo la yombalal ndam bi nga am ci kaw waaw xëy na moom bu takkoon fitam jour ba bëri man mënoon na am leneen mais peut être moom jour dafa ragar mais dafa am yoo xam ne di waxi nit pour man ndax ba ma ko daanee ba léegi bëri naa fi ay combat combat di ci waxu ko kon tey bu mu bëgg combat wala muy nangam parce que tey bu dee dama ko daan mu saltel kon mun naa ne xëy ko Forza kon bu ko neexee wax lu ko neex ñi daan ñëpp mooy loolu man fi ma yóbbu fi ma agsi yàlla mu ngi fi teg mais suma fulla ak sama fayda laa yor Jordan ba may bëre moom maa ko gën a bëgg combat bi maa ko gën a liggéey maa ko gënoon a soxla gën ko pare ci lépp parce que combat maa ko dirigé maa ko bëre maa ko daan kon man awma lu may waxatee ci moom mooy passe boobu passé naa ko mooy santa dimanche àdduna am bu xalaat mu ko am daan ma ku ma respecté la nag parce que wax dëgg yàlla dafa am benn magam boo xam ne dama ko nawloo trop dama koy fekk sëñ Abdou Karim daf may conseil lu baax wax sa baaxu waaye wax sa baaxu waay wàññiw dara ci sa mbaax nit da ngay gore bu la daanee da ngay accepté nangu mooy yëf sportif mais loolu moom nee naa la yóbbante boobu moom ne ko waxi dof rek la ma fi tontu waaw man na aw ma lu ma ko ci tegalaat mooy ne dem seet leneen moo gën ci moom. kon mën na japp ni ay kàddu yim yëkëti dal nekul nekkul sportif. non de kàddu sportif nit bu la daanee da ngay nangu ni dañ laa daan parce que tay dafa mbër yoo xamante ni dañuy bëri ba paré ba la mu ji wésu ñuy tok ni li la waron def suma ma wala ngay rëccu ni ki waru ma woon daan dëgg la mat na mbeur taxaw na bu taxaw bu mu wara taxawé taxawee fa la ko fekk ci laam la ko fekk ci laam la ko fekk mi daan ay naataangoom boobu ñi ngi nekk lu ndaw. bu ñu bëree mbapat sax mun naa ne pareeguñu yàlla wërsëg luñu bañ ñëw ba bëree moom bu ñu ko daanee sant yàlla la. waaw mbër bu loolu weesoo tamit euh, euh, mun naa ni instant yi euh, am na benn combat bam te ni taxaw na waaw mun naa ni mooy diggante Boy Niang ak Lac de Guiers numéro tey nga nekk doomu géejawaay nekk aussi ci rak ki nga xamante ne mooy Lac de Guiers numéro 2 combat boobu waral coow lu bëri diggante Pikine ak géejawaay mu nekk un combat capital tey avant tout yow gisee làmb jooju. Mm, di wax la dëgër moo def yëf sportif parce que mën naa ne delluwaat na wàcc bëri ak moom kon loolu sportif la espoir a koy def mais laamu ju neex la mu la boo xamante ni dina neex ci xeex na neex ci bëri mais maa ngi yàlla li yàlla may la dëgër ndam ci barke Seydina Mohamed ndax moom laa moom laa dëkkoon moom laa moom laa xamante te mooy sama mag bopp. wa ñu nek ñaari mbeur yo xamantene dañ ne dañuy dañu nduru anam yi ñuy bëree c'est-à-dire ku ci nek da ngay adopter ben attitude défensive dañ faral di xaar duñu ay attaquant comme nim ko mëna waxé faral di dem tay tay bo doon digal la dëgg nan la war mëna mën ba génn ci lamb joju wa bu ko doon digal xam nga tey nit la koy digal ak euh, barbu arbitre lam fay fekk ndax mën na bokk mën na aussi moy limo man limay bu may ko digal bu ñëk mooy am moy mu entraîner ba ba os taxaw man conseil boobu laay am li ma njëkk def ci Lac de Guiers te xam naa ni moom dof la moom moom du noppalu moom day entraîné ku xam nga loolu daal laa koy njëkk a sànc mu taxaw pare tamit mystiquement aussi waaw parce que làmb dafa laaj doole laaj mystique parce que tamit ci la bokk dañ ko fay fekk. waaw kàddu yi am na solo mais ñu bëri surtout spécialiste yu bëri dañu combat bi Lac de Guiers numéro dafa war a dem jëli ki nga xamante ne mooy Boy Niang parce que doon na warul taxaw xaar ko dafa a ñëw soxla. mais day dëgg la ñi ñeneen day défendre mais boo xoolee ñi muy daan ñëpp moo la ñuy jëli loolu day am parce que dëgg la ñoom ñaar dañoo sàccante bëri waaw loolu moom dëgg la moom mais ki gën a bëgg combat bi di dina feeñ ci jour boobu. waaw ñu nekk aussi ñaari mbër yoo xamante ne ñoom xaar-xaar lépp yëpp saa yu nattee boobu ñor ñu dem suñu demee dañu am li ñu bëgg loolu nan nga gisee côté boobu tamit njëkkante lay doon wala nu muy demee. waaw parce que seen mbir dafa assuré li nga wax rek kenn ku ci nekk bu ko demee am lu leer loolu moo tax de toute mooy kenn ku ci nekk xam nga la war xam nga looy xaar aussi loolu tamit waaw ci la bokk. ñoom ñaar bu ñu xeexee loo gis. Ah, bu ñu xeexee tamit kenn ku ci nekk am nga sa bunt xeex parce que ñoom ñaar eh, am nañu opportunité xeex am nañu opportunité xeex xëy na la dëgg yàlla koo gën a diis loxo mais ñoom ñaar ay xeexkat lañ wax dëgg yàlla mais du ko day xeex xeex boo xamante ni comme xeexu bagaar non non ñoom nañ koy nettat. dañuy natt seen xeex maanaam ñor na ñorut ci ci seen bëre xeex bi dañ ñor du ñor parce que mën nañ la dóor mais seen bunt bu ñu ko amee dañ koy liggéey dem seen yoon. Ah, loolu am na mais ñu faral di dégg ku ci mel ni Père Diaw mu daal di wax ni xeexu mbedd moo jig mbër mbër am na fooy tollu tey doo xeex xeexu box comme ni nga ko waxee rek xeexu mbedd mooy jig mbër am na fu combat di laaj day day day laaj nga accéléré li ngay def. waaw xam nga box box la la ala mën nga mën xeex bokk boxe trop mais boo ñëwee doo ko appliquer ci làmb bokkuñu position parce que tamit boxe moom sa garde ngay jël di natt di dóor fee da ngay leetoo mën ngaa déplacé wu te dafa am ay song am ay technique yoo xamante ne da koy nas ci suuf kon mun nañ ne ci la bokk nag jàng xeex ngir nga xam nay moytu ni nga xam fooy dóor loolu ci la bokk parce que tamit ñu bëri ñi ngi dóor mais amuñu xool dóor di gaañ nit ki dañuy am xol pour dóor ko rek anka am bunt man moom gis naa ci mbër yu bëri yoo xamante ni dañuy xeex mais amuñu xol yooyu sax yàlla xam na ko xëy na làmb na moo bindoo noonu mooy bis la boo xamante ni benn jour la boo xamante ni maanaam fulla ak fayda nga ko yóbbu parce li nga bëgg rek mooy yóbbu ndam say noonu bañ laa ree aussi say soppe yi nga xamante ni ñoo son ci aussi ñu buñ ci gis seen bopp moo waral làmb yi di gën a métti nii. Eh, ñu daal di wax ni combat bi doon na combat bam ten ci la ñu xam dëgg-dëgg mooy Boy Niang ni boña ñepp xam nañ kim ki kim tek bëtam géejawaay tak kim la de guerre moo ko dese da koy faxas jàll ci moom yow nan nga gisee kàddu yooyu waaw xam nga ñoom duñu mbër ñoom dañuy ànd ak mbër rek du dëgg parce que waxi soppe lañuy wax rek ak wax yi nga xalaat la man mënuma top mënuma tontu sen seni seni demal parce que ñu am man amul man amuluma njëriñ pour man wata amal njëriñ la dëgër la dëgër lu ko amal njëriñ mooy mu dem liggéey taxaw war mu def ko waaw mais ça wax nga dëgg tamit la de Guiers war war na mën a liggéey liggéey ba aussi ñëw ci combat bi mais dafa am loo xam te tamit am na manière bu mu war a bëree combat bi yow en tant que mbër ndaanaanu làmm nga lan na ko a bëree ba génn ci saa tamit loolu moo tax ma lay tàll suma ma la wax sax xamal naa la combat dañ koy koy pare parce que jour da nga war a pare lépp mooy ci doole ci xam lan nga war a def kooku da nga koy da nga ko da ko ba pare bi kon boo ñëwee ci jour bi kan warul laa ne lii nga war a def wala lii nga war a def noonu parce que xam nga mbër bi mais tamit mbër dafay def sax làmb day dolli xam-xam day dolli doole loolu da ci am parce que tamit lii passé boo ko nettee ci lool rek boo demee di nga juum loolu day am mais peut-être pour man opportunité bi wala wala wala wala wala ko opportunité ci ci bëri bi man pour man la dëgër la sama xalaat nag laa wax na ko man parce que ni nekk tamit sa xalaat ngay wax mais pour man la dëgër moom opportunité loolu fan nga ko teg. wa parce que kenn ku ci na ngay seetaan sa lamb man suma anan lamb dama damay seetaan làmb jàmbur yi ya ñaa kenn ko damay tek sen lamb kenn ko nga xol li nga mune ak kan mo gëna a beure bëri si loolu man loolu man ci loolu lay dépendre. kon japp ngeen la de Guiers moo gën a assuré bëri. ah man de duma dong mako wax waaye ñi ko tam beure na xex bi tamit kan mo kan mom avantage. xex mi ñom dama naan 50 50 la pour man xex bi dama naan 50 50 la parce que kenn ku ci ne xam nga xam nga li nga mune ta xam nga xam nañ lay xaar waaw loolu am na solo mais bu loolu weesoo tamit sa donc sa mag Balla numéro 2 euh, bëri na récemment ci gi daal di am ndam ci kaw Modou am ndam boo xam te ne naa avec la manière waaw tey ñu bëri di wax ju coow li bëri trop ci lu nekk ci kanamam waaw Eumeu Sène nee na dootu ko jël dootul bëreeg moom am na ñuy wax naan digganteem ak Tapha revanche ak digganteem ak Bombardier yow nan nga gisee ëllëgu Balla Gaye numéro 2 ci lamb ji. waaw man ëllëg moom mooy ñu fexe ba li ko dese ci carrière rek lépp na ndam. parce que loolu mooy suñu opté loolu mooy suñu suñu mbébét mooy affaire adversaire moom du mos a nekk problème waaw xëy na nag li mu wax loolu ci moom la moo xam ne moo ko moo xam nag ndax dina am doo am mais aw ma ni aw ma yaakaar ni dinañ toog bañ a bëreeti dañañ bëri moom. Balla Gaye Eumeu dinañ bëreeti. burul ñoom sax dinañ bëri parce que ñoom ñi ci biir wala dama naan ñoom ñi ci kaw dañoo bëriwul bariwuñu te it làmb dafa am foo xam dafay ñor te bu ñoree rek di ngeen bëri te it bëree ma bëree bëree ma fi mën nga ko wax ak sa xel rek parce que moment bi nga toll woon mais mën nga dem ba benn instant mën na changer ci leneen ak leneen te di nga ko jël te kenn du la ko wax. kon su ma la déggee daal Eumeu li mu wax ni làmb day wëlbatiku te àdduna dafa gudd tànk mun na dem ba lépp wëlbatikuwaat mu wël topp ci ginnaaw Balla Gaye soxla ko. non waxuma mu topp ci ginnaaw Balla Gaye mais dama ne làmb da leen boole ala kulli aali làmb dèjà làmb dafay na boole. deug la même donto ma deug ñoy jël avance Modou Lo bu ñoom ñaar ñuy bëri woor ma nak am ah, moom Lo taxaw na. waaw mais lamb da làmb daf leen boole loolu moom c'est normal lamb mo leen bolé du card ay ay ay ay ki mo sol wala non est ce amateur ñoy yi lamb amateur ñoy amateurs lamb da lamb làmb na bu ñoré rek nañu xam ne ñor na yak ko rek ci dess mais mais lamb da fa ñor. na ah, léegi bu wéso Eumeu sen kan nga gis ni balé gay numéro 2 war na ko mëna jël. non mais Bombardier adversaire la loolu romance la loolu mooy capital làmb ji sax Bombardier rek la war a mën a bëreel ci yoon waaw. combat wu jàpp nga ni combat bu neex la quoi bu jaalu la. moog Bombardier bu neex la combat bu neex la ndax ñaa ñu bëri jom ñaa ñoo xamante ni fulla ak fayda lu leen moo leen tardé ci lu ñu tamit mooy dàq sax koo xamante ni mooy loolu. dëgg yàlla bu ma jëlee làmb yi neex lay bëri kenn du ko ci làmbam même bii daanaka bii daanu yëpp kenn du ko jépp ci làmb bisu balo kenn kenn kenn du naata ba bis ba bis bu jë bis bu ñuy fonk lay doon kon làmb la man pour man sama xalaat nag laa wax pour man ñoom ñaar mooy làmb ji.